xam sa démb xam sa tey xam xam sa tey xam production de Goethe Institut en collaboration avec les Archives nationales du Sénégal et Kër Leyti la maison de l'oralité et du patrimoine. àdduna yàgg na ci démb lay jóge déglu leen ma may ma nopp ma nettali leen jaar-jaaru Sénégal bu rafet bii sunu réew mii may leen ma nopp ma ànd ak ñu tukki ci jëf ju mag ju réew mi may leen ma nopp ñu dundalaat sunu xel ak sunu fàttaliku ñun doom yi fàttaliku ay doomam di góor di jigéen may leen ma nopp ñu wax ci ñi nga xam ne seen jëf rafet na ba nettali bi rafet may leen ma nopp ndax sunu taarix dafa rafet te jar a xam may leen ma nopp seen noppi xol nag laa soxla ngir ma ànd ak yéen ba ci suñ biir xolu démb may leen ma nopp ngir ñu mën a dund sunu tey may leen ma nopp ngir ñu mën a waajal sunu ëllëg ñun ñooy taarix. xam sa démb xam sa tey di waxtaanee ku jara waxtaanee di waxtaanee doomu gor di waxtaanee doomu Afrique joo xam ne Afrique gépp ko moom ñëpp jàpp ne moom moo taxoon ñu jóg di waxtaanee kilifa. di waxtaanee borom xam-xam di waxtaanee ko amoon dayo politique di waxtaanee borom jom ku xamoon tey xamle xam te làmbatuwut di gëstu te du ko caaxaane du parparloo ci xam-xam bañ rek ku yab der bu ñuul ki ñuy waxtaanee mooy Cheikh Anta Diop Cheikh Anta Diop mi ci ngor gi Cheikh Anta Diop mi ci xam-xam bi Cheikh Anta Diop doomi Afrique Cheikh Anta mi ngi gane si àdduna feeñ ci jamono ñaar fukki fan ak ñeent weeru décembre ci atum 1923 ca caytu fee ca wetu Bambey moom nag ñi ngi ko tuddee eh, nijaayam di nga xam ne moo Cheikh Anta Mbacké kenn ci rakki Serigne Touba yi Cheikh Ahmad mi nga xam ne moo sos Mouridia baayam nag tuddoon sàmba Diop moom Cheikh Anta génn àdduna ginnaaw bi mu juddu see Cheikh Anta moomu nag ndayam a ko yar Maguette jóob ak nijaayam bi ma amee ñeenti at ñu yóbbu ko ca kokki gee ca Kajoor mu dal fa alxuraan nga xam ne fa la njabootam soqi ko ca gannaaw loolu sax la dem jàngi ca école bee nekk ca Diourbel ñu tuddee ko tey école Ibrahima Thioy fa la amee certificat d'études primaires 1937 soog fa jógee nag dem ca lycée bii tuddoon Van Vollenhoven ca Dakar tudd tey lycée lamin Gueye foofa nag fa la yéeme ñëpp ndax Cheikh ba mu demee ba war a wut bac dafa am baccalauréat ci mathématique di xayma teg ca baccalauréat ci philosophie te ñaar yëpp mu ngi leen am diggante weeru juillet ak weeru octobre ci menn at mi di 1945 ba mu yoree ñaari lijaasa yooyu nag ca la jóg wan nit ñi ne ca la wan nit ñi ne fas na yéene boole xam-xam buñ mën a natt takk te ak xam-xam boo xam ne day yëngatu ci dundunu askan wi loola nag moo tax Cheikh Anta Diop jógee fa dem France ba mu demee France ne day gëstu lan lay gëstu ah xanaa xam-xam màggee université bii du sorbon fala la jàngee dafay at ñu jox ko licence su philosophie xeltu ak gëstu xam-xam waaye dañ ca tegu diir jox ko beneen certificat muy chimie général ak beneen certificat chimie appliquée 1950 Cheikh Anta dugg ci laboratoire boobu ñu tudd laboratoire Curie nga xam ne la fay waxtaanee te buggoon ci jëmale xam-xamam mooy chimie nucléaire ak physique nucléaire Cheikh Anta moomu nag. kon mën nañ ne ma ngay jàngale sax ca jamono booba lii di chimie ca lycée bee tudd Voltaire ak lycée bi tudd Claude Bernard ca Paris ñu tuddee woon leen nag maître auxiliaire Cheikh Anta Diop moomu yamut ca njàngum xam-xam mooma ñuy xayma ca boole woon di gëstu ci lépp lu jëm ci ay làkk ak mboor ak lu jëm ci cosaanu Égypte looloo tax ba mu gëstoo ba noppi bindub téere tuddee ko nation nègre et culture présence africaine génne woon ko 1954 MSSR sax bi téere boobu génnee moom ca téereem bu mag boobu ñu tuddee discours colonialisme da caa wax ne téere bii mooy téere bi ëpp fit bu nit bind di nit ku ñuul te nit musta bind téere bu raw bii te bii nanu bàyyi xel ne ëllëg bu Afrique bi yeewu ci bii lay jaar Cheikh Anta Diop ana ñum àndaloon ba mu nekkee France ñim daan jataaya ndool mooy Amadou Hampâté ba borom xam-xam bi Boutros Boutros Ghali Roberum Ñoobe Joseph Kizerbo borom Amadou Mahtar Mbow ma mujjoon a jiite UNESCO Léopold Sédar Senghor mi jiite woon Sénégal Sékou Touré mi jiite woon Guinée Ablaye Wade mi jiite woon Sénégal ca Paris ñu nekkoon fa Touba di ànd waaye keroog ba mu taxawee ne day def thèse de doctorat lettres ca Sorbonne janvier 1960 képp kuy nit ku ñuul dem nga ba mu ko amee nag la ñibbi si Sénégal ñu yóbbu ko Institut français d'Afrique noire nga xam ne tey jii mooy IFAN bi nekk ca Cheikh Anta Diop mu def nag benn laboratoire boo xam ne day def lépp lu nu gëstu te xamuñu fu mu jógee amoon na machine boo xam ne dana la wax yax yi ñaata at la am Cheikh Anta Diop nag ma nga doon sukkandiku ci xam-xam bu ñu tuddee carbone 14 festival mondial des arts nègres ba mu amee 1966 dañoo jël raaye bu mag jox ko ko ñu ne raaye bi lu tax ngeen jox ko ko ñu ne raaye bi dañ koo jox bindkat bi nga xam ne moo gën a dugg ci xelu nit ku ñuul ci xarnu ñaar fukk te gën a am jeexital ci ñoom Cheikh Anta kon mën nañ ne bi ñuy bind mboorum Afrique t UNESCO mu histoire générale de l'Afrique moom de ca kuréel gu mag nga ŋànkoon xalaatin wa ca la bokk 1974 ca colloque bu mag ba amoon Caire nga xam ne dañ faa dajale borom xam-xam yu mag yëpp waxtaanee nañ fa gëstoom te dëggal ko fa loola moom moo tax téeréem yu mag yii moom la ñuy waxtaane ci àdduna bi seen tur ci tubaab l'Afrique noire précoloniale les fondements économiques et culturels d'un état fédéral d'Afrique noire antériorité des civilisations nègres mit ou réalité historique parenté génétique de l'égyptien pharaonique et des langues négro-africaines civilisation ou barbarie Cheikh Anta Diop moomu nag 1981 ca lañ ko soog a fal muy professeur associé te kuréel ga ko doon fal étudiant yam jàngaloon sax am nañu ci bokk ndax yéex gun ko yéex a jël ca faculté des lettres et sciences humaines ca université Cheikh Anta Diop bi yor turam tey at ma ca topp 1982 kër gi nga xam ne day tëggi téere di sankoore dajale ñëpp ne leen Cheikh Anta nañ waxtaanee mbindam a gëstoom képp kuy borom xam-xam mbaa ngay jàngalekat mbaa ngay étudiant jàkkaarlu nga ak moom ak xam boo mënte laaj ko mu tontu la waaye Cheikh Anta bu leen fàtte ne da doon politique ba mu nekkee France sax mi ngi bokkoon ci association étudiants yi nga xam ne ñooy étudiants wu rassemblement démocratique africain RDA waaye bi mu ñibbisee Sénégal 1961 ci la sos yëfi boppam kon 1961 ñoom lan lañ sosoon mooy bloc des masses sénégalaises BMS BMS boobu nag bañ demee at 1963 ñenn ci ñoom ne dañuy ànd ak Senghor Cheikh Anta bañ ak ñoñam ca la ñu taxawal Front National Sénégalais nga xam ne récépissé amu ko 1964 ñu tere ko Cheikh Anta daa di bàyyi nekk ca leneen di gëstu ak jàngale ak wër di waxtaanee xam-xam ba nga xam ne 1976 ca la sosaat ak ñoñam rassemblement national démocratique RND parti boobu nag xale yu bëri borom xam-xam yu bëri bokk nañ ci te mu amoon doole lool ci àll bi loola nag taxut ñu jox koy këyit lu dul 1981 RND moomoo bokkoon ci élection wu 83 ya waaye ba mu amee benn député assemblée dafa gedd ndax nee dañoo sàccoon élection yi Cheikh Anta gedd ne du dem assemblée élection maire ca F24 ñu ne ñoom duñ ca bokk waaye Cheikh Anta bu kenn fàtte ne def politique terewu ko woon na nekk gëstukat bu xereñ li nga xam ne mooy Égypte ak fa mu jógee ak xam-xam bi mu ci am tax na fu ne ci àdduna ba ma fa conférence yi def ma limal leen mën naa leen a limal Alger novembre 1982 juin la fa dem 1983 Niamey Niger 1984 Londres fële ca Angleterre janvier Atlanta ca Amérique avril Paris nag juin def na fa waxtaan wu rëy mooy wu mujj Yaoundé ca 1986 nga xam ne dañ caa tegub diir rek mu génn adduna ndax janvier la ko def 7 février 1986 Cheikh Anta génn adduna génn àdduna googu nag tax na ñu tëral ko caytu ba muy génn adduna mi nga amoon juróom benn fukki at ak ñaar waaye Cheikh Anta mel na na ku dund junniy at Cheikh Anta sa dund am njariñ Cheikh Anta nga taxawal der bu ñuul Cheikh Anta nga taxaw sigg fippu ne tubaab bi yaa ngi fi noot ñu waaye moomoonu ne képp kuy nit foo soqi ko Afrique la waaye foo soqi ko Égypte la Cheikh Anta yaa dëggal xam-xam Cheikh yaa taxawal ngoru nit ku ñuul Cheikh Anta yaa fëgg deretu nit ku ñuul mu daw ci yaramam mu jóg taxaw Cheikh Anta yaa doon waxta làmbatoo taxaw ci politik am looy bañ waaye nga ne gëstukat la jàngkat la boroom xam-xam bu xara la jël làkk wolof jiital ko teg ko ca kaw xam ne loo am sa bopp ko gën te xam ba xam jee xam sa bopp ci gën Cheikh Anta Diop Cheikh mi ci ngor gi Cheikh Anta Diop mi ci xam-xam bi Cheikh Anta doomi Afrique Cheikh Anta doo dee mukk donte sa bakkan yàlla jël na ko ndax sa xam-xam joxe nga ko xam sa démb xam sa tey di waxtaan wu leen Goethe Institut may ànd ci ak archive national du Sénégal ak it Kër Leyti maison de l'oralité et du patrimoine direction artistique ak présentation Massamba Gueye assistant Abou Soumaré régie technique la Factory bu Ousmane Faye ci xarala gi Roland Sagna coordonnatrice Bouye Institut